barhaamu baun waraun alifun thumma ha mi mun faydu tiijaan jox ñu ñuy naan ñi sant yàlla bu baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy kàddu yoo xamante ni alquran dafa wax ne képp ku ñàkk dara wax ko yàlla dina la utalal lu gën li nga ñàkk dëgg yàlla ñun ñàkkuñ ñàkkuñ ndax sëriñ bi seede yuñ koy seedeel fii nii yëpp seede yuñ koy seedeel wallahi ñun ñàkkuñ ndax Seyda Ndeye Aida toog na fii sànq ne dund li nga dund ci ay at lu ëpp quatre-vingt nangam amul sa benn mbokk bu mun a taxaw ne lor na ma ci nangam wala wax na ma lu ma naqadi mu ne loolu yombut kon nag ko ko daanaka ñàkkoo parce que am nga jëflante na jëflante na ak nit ñi loo xamante ni dinañ ci mun a jëflante ay njabootam ndax euh, du ñu ne benn waay dafa musa a ñëw ci yenent bi ne ko dama ñàkk sama wayjur mu ne ko ñàkk nga ku la ñi daan yërëmee na nga fexe ba yow nga def loo xamante ni danañ ko yërëmee sa njaboot ëllëg kon nag ñun ñu ngi sant yàlla bañ amee góor gu mel ni Cheikh Mouhamed al Aqib nga xamante ni léppam dal la léppam noppi la léppam alquran la léppam yàlla la njub rek la daan dénkaane mhm. mhm. njub ak bañ a yàkkamti loo wax mu la jubal te bul jubal te bul yàkkamti lii rek lay dénkaane laaj nga sànq ne lu tax ndaw yi ñeme ko ne tax ndaw yi ñeme ko mm. moom ah, dafa jël fu mel ni dafa jël waxu baay boobu noonu mu ne la ara sinna xëy dan baay moo man gisuma at yu néew war a mën a tënk nit ci dara mm. xëy na moom kii boobu noonu la jël mm. ba nga xamante ni dafa jël ndaw yi xëcc leen ci boppam ba pare di leen encouragé bu la sante dara bu la sante dara ngeen nii nga naan kaan est ce que loolu man est ce que est ce que ko mu ne kenn mënul jéemal mm. ku jéemut doo kon nag dafay encouragé ndaw yi daf leen ni gëmloo seen bopp lépp loo nekk dafa jàpp ne mbir wartu mën a rëy ba dépassé nit ki wala mu lay jaaxal ba doo ko mën a def kon loolu moo taxoon ndaw yi ñeme ko dafa jël ndaw yi xëcc leen ci boppam pour teg leen ci yoon pour ñu baax pour ñu bañ a yàkkamti pour ñu jub mu toujours dafay wax ne man bu ma ko waxaan ne ko sëñ bi ñaanal ñu nag fi mu nekk nii jot na pour ñu beeku mu ne ma yàkkamti rek moo leen yàq borom borom karaw gu ñuul ñàkkut dara borom karaw gu ñuul ñàkkut dara lu rek la ñu daan wax kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ñu ngi koy wax ne ko mu nga jëm fi mbaax amee njëriñ fi mbaax amee njëriñ mu nga jëm foofu noonu yàlla bu yaakaar tas yàlla yàlla yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yaa rabbi yàlla na yàlla dëkkale koog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu wax ci moom nekkul ne dañuy wax ci suñ baay rek ne suñ baay la rek dañuy seede ci moom lu rafet lii ma seede nii képp koo tàllal micro tey ci dëkk bi loola lay seedal ni nit ku baax la ni nit ku baax la rawatina nag baax na ci ñun ci comme dëkkandoor hmm. baax na ci ñun comme baax na ci ñun comme julit ak monomu julitam baax na ci ñun comme dom ak bay ndax barki dem fi samedi ci guddii man ak mom dañoo tok fi ci buntu ci buntu kër gi ba côté minuit mak mom ñoo tok mu ne ma sha bay mu ne ko naam mo man lan lay utiti ci aduna lan lay dawatel lan lay dawalatil aduna lan lay ci mu man soxlaatuma dara lepp luma yor yena ko mom baat bi la ma wax mu jug dem tëri dimanche bi muy génn àdduna toog na fii julli fajar def laazimam yeeg awaraadam yépp jug dem tëdd ci nekk bi feebar bi daaneel ko ñun dañ doon dem tool ci jour boobu noonu jour dimanche bi dañoo dem ba buntu kër pa Cheikh Moussa pour jël xale yi bu ooma ne ma dëppal bul dem yaasina bu ooma ba ma ñëwee an ko fekk ci kaw lal bi mu ngi tëdd tar ci tari alquran làmmiñam bi lott na waaye for naa ci daal muy jàng ayatul kursi yu ak qul ba mu demee ba sonn ba sonn ekkiti na loo xam ne ma sama bopp dafay te karaama bi ci gën a doy waar mooy ne arbaata la judd ci rabi jenn xamsa wa ishrin ci rabi te dimanche la judd dimanche la génn néegam fii del si waatut kon bis bu mu judd bis boobu la génn àdduna kon ku ñu ñee la waaye nekkut koo xamante ni dañ koy dañ koy yërëm wala ñi wax ne ñàkk nañ ñàkkuñ ñàkkuñ ko ñàkkuñ ko mu ngi fi léegi ak ñoon kon nag yàlla nañ des ak mbaaxam li ma gën a yem ci moom nag li ma gën a yem ci moom muy karaama bi ma gën a yem ci moom mooy taqoo gi mu taqoo alquran mbooloo mënu koo bëree hmm? mbooloo mënu koo bëree maanaam xat-xat it mënut tax ba mu xëy du bi gis nga keroog ba mu daanoo ba mu tëddee feebar waxtu jàng jukkeem bi jot dama ne Cheikh Moussa tey jukkeem bi wéet na dama ne Cheikh Moussa tey laa mus gis tey jii laa musa gis papa bis boo xamante ni jàngu ci alquran te ma ne ko sax te ma ngay jàng alquran alhamdulilah rabbil alamin barhamu baun waraun alifun thumma ha